wasalaatu salaam ala man laa nabiya baada amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki téléspectateur yu 2 ci biir réew mi wala ñu ne bitim réew wala fu ñu mën a nekk ci àdduna di ànd seen télévision bi 2STV waaye di ànd ak seen rajo origine FM 88 point del soit nañu yéen seen jotaay yu daara jigéen mii ne ci tafsirul quran ngeen ci ànd ak seen mbokk daara Abdoulahi Gaye ñu leen di nuyuwaat nag bu baax di leen ziyaarawaat di leen baalu xàq te di ko baal di ñaan suñu borom subhanahu wa mu def ñu dëgg dëgg jullit waaye dellu rek di ko ñaan xéewaluk suñu ngëm mu tëyal ñu ko ba bu ñuy dem ci moom ñu yóbbule ko ni mu bëggee waaye bañ ko yóbbee ñun ni ñu bëggee xam ngeen nii ñu ngi yéen seen saar bu am solo bi macha allah di suratul maida jotaayu tafsir bi ñu mujj def ñu am ak yeen ci saar bi vingt six verse te ñu war a jël vingt septième verset maanaam saar bi di suratul maida amoon nañ ci ñaar fukki aaya yu teg juróom benn aaya te ñu war a jël ñaar fukkeelu aaya yu teg juróom ñaari aaya ci seen saar di suratul maida xaytu yaqulu lmawla subhanahu wa taala watlu alayhim naba abnay aadama bilxaqi id qaraba qurbanan fa tuqubila min axadihima walam yutaqabal min al axar qaala la aqtulannak qaala innama yataqabalu llahu min almuttaqin mbokki tey fi ñuy jële ci saar bi mu ngi wax ci yàlla di wax ak sallallahu alayhi wa sallam ni ko jàngalal gaa yi watlu alayhim naba abnay aadama bil xaq indilal gaa yi nga nettali leen xibaar ak mbiru ñaari doomi maam aadama ya waaye nag ci dëgg baat bu sew la yàlla dugalal yonent bi alayhi mooy bil xaq mooy li ma doon wax di ko waxaat rek mbokki wax lu mu bari bari bari bari na ko dëgg rek lal na ko dëgg lal moo tax yàlla ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam indil jàngalal gaa yi histoire ak xibaaru ñaari doomi maam aadama yi waaye nag bil xaqi teg ko ci dëgg bil xaq ce qui veut dire ni histoire bi kon am na ñu ko daan nettali waaye daawuñu ko teg ci dëgg borom bi subxanahu wa taala nag wax yonent bi alayhi salaatu ni ko nettali ko waaye soo koy nettali na ko teg ci dëgg bil xaq baat bii nag mbokk yi bil xaq bi képp kuy yëngu ci tas képp kuy taskatu xibaar war nga ko bàyyi xel bu baax a baax a baax bëgg maa ko njëkk nettali maa fi wax lu kenn waxul bu la taxee wax lu dul dëgg na la leer ni mënoo fexe ba du di nga ko layoog sa borom yowmal qiyaam kooku moom dafa war a leer ci suñ bopp kon saa yoo demee bay jël sa plume di bind maa nga nekk ci presse en ligne bi toog war a am article boo war a dugal wala benn mbir boo fa war a dugal wala nga ëf sa micro ci sa rajo wala toog ci sa télévision di wax war ngaa suur bu baax ndax lii may wax bil xaq la wala du bil xaq ndax ci dëgg la tegu wala tegul ci dëgg loolu moom war nga cee veiller loo man ba li ngay wax mu doon dëgg yonent bi aleyhi sa wasalaam ne na nga wax dëgg dontele day dal ci sa kaw wala wa ala lu mu wex wex wex wex lu mu metti metti metti lu mu tar tar tar lii dëgg wax ko moo tax yàlla ni yonent bi alayhi salaatu salaam wax de baax na waaye wax dëgg nag moo gën ndax xanaa ni képp kuy wax te du wax dëgg na xam ne benn virus bu bon dugg na ko muy virusu moom naafiq la te xamu ko virusu nifaaq bi dugg na ko léegi mu ngi commencé doon hypocrite mbir maa ngi koy dugg nag te day avancé bu sàgganee ndax koo xam ne saa yooyu wax rek doo wax dëgg dafa garaw te yonent bi nee na jullit eh, du wax lu dul dëgg de képp koo gis muy wax lu dul dëgg rek ay ci lool kooku duteel ci croyance am ngëmam na ci dute na ci sikki sàkka est-ce que kii jullit la ko xam du wax dëgg mukk loolu borom bi subhanahu wa bëgg ko mbokki jullit mu ne yonent bi nag nettalil gaa yi mbiri ñii nga xamante ni ñooy njabootu maam aadama yi ay doomam waaye ci dëgg ñaar ñooñu nag kenn kaa ngi tuddoon xaabil kenn ki tudd haabil histoire la nag boo xam ni bari na ay nettali boroom xam-xam yi bari na ci ñu version bi nga xamante ni moom la ñuy indi ci moom mooy dañuy wax ni maam xawa toujours ëmb bu mu mës a ëmb ay seex la daan doon soo mbaatee mu amaat ay seex léegi dañuy jël seexu kii may kële muy sa soxna jël seexu kële may kii loolu moo mas di am loolu di dox sans problème ba bis rek am ay seex yu fi ne qaabil am seex haabil am seex ñu war a jël seexu qaabil may ko haabil wala jël seexu haabil may ko qaabil qaabil nag ni moom kenn du ko échanger seexam ndax seexu kee dafa ñaaw kenn du ko may ndaw soos xam nga loolu kenn xamul lan la règle boo xamante ni moo fi ma sa nekk kenn mësu ci am problème mu ne moom du ko def parce que kee dafa ñaaw kon du joxe seexam di jël ko ñaaw kee coow li bari maam aadama ni leen léegi pour régler la situation def leen lu ñuy wax euh, sarax bu njëkk loolu nga daan xame li la yàlla nangul ak li la nangu li mu la nangulul da nga daan jël benn sarax teg ci béréb su ko safara si ñëwee lakk ko jël ko mooy wane ni yàlla nangul na la su ko dul nangu nag fa nga ko day fekkaar mu ni tegg teggaaral maam Adama wax leen loolu ne laaj leen seen borom ba mu leen laajee xaabil da doon bay am mbay si la daan yëngu haabil moom ab berger la woon yor ay xaraki nag yu bari moom loolu la yoroon bi loolu amee xaabil moom dem jël ca mbayam ma la ca gën a bon moom la teg pour xool pour bëgg bëgg bu dee day loolu day dem na loolu dem waaye bëggul sax alalam dem waaye Haabil moom dem jël mm, xar ma gën a baax ca géttam ba fa gën a rafet ni moom buy buy def sarax ci yàlla bii lay joxe ma ah ñu nangul Haabil saraxam Qaabil kenn nangulu ko mbayam moom mu fa tegoon wala la situation est bi loolu amee nag mu mer iñaan jàpp ko ci digganteem ak Haabil kon ma bàyyiloo leen xel ni crime bi njëkk a am njuumte li njëkk am ci kaw suuf rëy la kooku iblis moo ko indi woon yàlla dafa ni ko sujjóotalal aadama mu bañ la ko dal dal ko ñaareelu njuumte bi am mu ngi dal ci suñu mam aadama mooy xër moo ko yóbbe yàlla dafa ni ko lekkal lu la neex waaye wala taqraba hadi shajara garab gii bu leen ko laal mu mel ni dañ ni ko garab gii soo ko laalul dee mu laal ko kon mooy ñaareelu si ñetteelu dégât bi am ci kaw suuf njuumte bi mooy bii xaabil indi mooy iñaan iñaan nag mbokk yi day lu garaw a garaw yonent bi doon wax ne nee na képp ku iñaan doo doon sang mukk di nga yàgg di iñaan iñaan googu nekk ci yow te du deñ ndeysaan suñu kilifa gu baax ga yàlla na ko yàlla xare àjjana daan na ko nettali muy sëriñ Habib euh, Sarr Habib Sarr doonoon borom xam-xam bu ñëpp ràññee bu masaana faraan ci tànt rek xol yëpp sedd moo daan wax nii iñaan ay degré la nee na iñaan dafa am iññati am iññañañi am bu daan wax loolu nee iñaan mooy ki nga xamante ni ndeysaan lu nit am rek bëtam yëpp moom la ca teg ah, am na ñoo xam ne feebar boobu la am lu ñu am bëggatuñ ko lu nit xës ba am daal ñoom seen bët xoolatul li leen yàlla jox waaye li nit am rek lañuy teg bët loolu mooy ñeetaati ñaareel bi muy iññat yi mooy koo xam ni lu nit am sa xol bi li ci nekk mooy diw mii lii mu am na ko ñàkk man ma am ko yu dal kenn dara lu nit am daal pour yow jekkul ca moom waaye ci yow la jekk benn waxkat daan na wax naan béjjéni nag sëgëm wala béjjéni lu mu mën a doon sëgëm buñ ko dindee ca fa mu nekkoon mën nañ koo defar ba bu rafet ci bëtu nit ñi rawatina fa mu nekkoon kon nu mu fa nu mu fa nu mu fa taaroo woon mooy lan li nit yor nga yéene ko sa bopp ca ko ca moom la gën a jekk suñu borom xam na ni ca moom la gën a jekk ñaareel bi mooy koo xam ne lu nit yor rek nga ni na ko ñàkk man ma am ko ñetteel bi nag mooy bi garaaw mooy iññaña ñi mooy koo xam ni soo amee dara xol bi moo ko dul mën a muñ léegi danaan yàlla man vraiment kii bañ gi ma ko bañ man bu ma ko am sax nga gis nit yor otoom boobu rafet di dawal non ci li ma ko yéene ci oto bi sax xam ko c'est que yàlla même bu ma amul oto bi sax na génn rek accidenté rek oto bi yàqu ñu yem ci maa ngi xam nga loolu feebar la mbokk yi loolu nit am yow nga ni yàlla même bu ma ko amul moom na ko ñàkk ñu yem ci képp ñu yem ci képp bu mu ko am bu ma ko am loolu baaxul mbokk yi léegi nag Qaabil problème boobu moo ko jotale ak Haabil euh, moo tax sax am na ñu ni bii crime passionnel la maanaam am na ndaw su mu bëgg ni du ko joxe te war koo joxe nag li nga xamante ni mooy régle bi loolu la woon mu lànk ni du ko def léegi nag seen mbaay muy maam Adama ni leen def leen lii sarax bii laaj seen borom ñu nangul Haabil nanguluñu ko moom Xaabil loolu naqari ko mu ni ko nag dinaa la rey de moo tax mu ne la id qarraba ba ñu euh, génnee defee lan qurbaanan ab sarax ba ñu génnee benn sarax lu ñuy jaamoo yàlla ngir xool jegeel ko pour teg xool kan la ci boroomam di nangul ci ñoom ñaar mu ni fa tuqabbila min ahadihima ñu nangul kenn ki ñu walam yutaqabbal min al lu ñu ki ci des mooy ñu nangul haabil te ñu qaabil ba ñu génnee seen sarax boobu rek qaabil mer qaala mu ni ko la aqtu lan naka giñ naa ni man dinaa la rey yow mbokk yi loolu garaaw na de nee na ko maa ngi giñ ni yow mii dinaa la rey a ah, moo leen jotewuñ dara de lii mooy problème bi ñu wax leen solution bi yàlla tranché ànd ak Haabil mu ni ko nag lu tax yow nga nar a jël sama seex lu tax yàlla nangul la te nangulu la la aqtulannaka dinaa la rey mu mel ni bi mu waxee loolu Haabil dafa ne ko lu tax mu ne ko ndax daan laa nangul te nanguluñ ma li tax yow ñu lay nangul te man du ñu ma nangul loolu moo ma metti ba yëgal ni fu ma la fekk yow ba yow nga préparé te xam ni yow sa bakkan bii ci sama loxo bii lay dese yow Haabil Haabil ni ko mais man defuma ci dara innama yataqabbalu llahu min almuttaqiin yàlla ki nangul wala yàlla ñi nangul mooy ñi nga xamante ni ragal nañ ko yàlla ki muy nangul saraxam mooy ki koy def ànd ak taqwallah ragal nangul yàlla borom bi subhanahu wa taala nee na kooku la yàlla di nangul saraxam mun ko lii rek la de man di defuma la dara yàlla mi nangu moo ma nangul yàlla nag wax dëgg yàlla dafay bàyyi xel ci buy nangul nit ragal yàlla gi te nag li garaw mooy xaabil mi doon wax loolu haabi la ko sut haabi la ko ëpp doole haabi la ko man moom mi nga xam ni moo ni day reyee kii mu ni dama lay rey kooku ko man kooku ko sut kooku ko ëpp kooku ko ëpp kàttan mais mu wax loolu waaye nañu déglu réponse bi ko haabil wax haabil ni ko la ilay basatta ilayya yadaka li taqtulani saa yoo demee ba tàllal sa loxo moo xam danga caa yor paaka moo xam da nga caa yor kuur góoma fa seeni dóor moo xam da nga caa yor jaasi moo xam da caa ut yor yet wala da nga caa yor pistolet sax pour jëmale ma ko tiimale ma ko pour rey ma li la nii ngir rey ma yëgal ni maa ana bi baasiti yaday yadiya ka li aqtulaka man day nekkuma mukk di kuy tàllal sama loxo ngir rey la man duma ko def man duma ko def yow nag am nga ci droit dëgg yàlla avertir nga ma mais bu du tax ma moytu de waaw du ma moytu duma daw duma def dara de du façon yow bu dee yow am nga intention rey ma kooku yow la engage mais man moom xalaatuma mukk ci àdduna di la am di am intention rey la li tax nag mooy inni axaafu llaha rabbal alamin man dama ragal yàlla mi nga xamante ni mooy borom mindeef fii man dama ko ragal ragal naa sama borom lool ba jombante naa ak di wër di rey nit ñi te duma ko teg fenn inni axaafu llaha rabbal alamin man de ku ragal yàlla laa lool yàlla mi nga xamante ni mooy borom mindeef fii moo tax duma la rey mbokk yi Haabil continué ni ko inni man de uriidu dama bëgg man Haabil an tabu nga deme yóbbu bi ismi ci sama bàkkaar wa ismik ak sa bàkkaar fa takuna min ashaabi naari bu boobaa li ma lay jural mooy nga doon nitu safara nit ku jëm ca gaa yi safara yi nga ndara bokk loolu la ko wax ko ba ma reyee moo ma gënal man ma lay rey xanaa xamoon nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñaari nit bu ñuy songoo di xeex kenn ku ne am yéene rey moroomam nee na bu boobaa kañu rey ak ka ko rey yépp safara lañ jëm saxaaba yi ni ko ñun de jaaxaluñu ñu xam ki nga xamante ni moo reyee safara la jëm mais ki ñu rey nag mu ne ki ñu rey yéene moo doon rey ki ko rey waaye dafa fekk kee jekk ko rek rey ko kon ñoom ñaan ñëpp intention ba moo tax ñoom ñaan ñëpp safara lañ jëm moo tax Haabil ni ko ah man de wax dëgg yàlla euh, li ma programme li ma yéen mooy boo ma bëggee rey am nga ci droit mais man jéemu ma koo sax def ci yow waaw du ma la jéem a song duma la jéem a xeex ak yow du la jéem a def dara soo mënee nag gàddu bàkkaaru rey ma gàddu bàkkaaru li ñu fi tëral yàlla nangu sama sarax nanguwul sa sarax nga yor ci comportement bi jël loolu lépp waaye nag na nga xam ne soo boolee ñaari bàkkaar yooyu li mu la jural mooy nga bokk min ashaabi naari ca gaay yi nga xam ne safara lañ jëm foofu ngay mu wax ko mu ni ko wa dalika te lii nag jazaau zalimina mooy fayu tooñkat yi tooñkat yi lii la leen di yàlla di faye wa dalika jazaau zalimina lii mooy fayu tooñkat yi dalika jazaau zalimin lii mooy fayu tooñkat yi waaye gis nga li ko Haabil wax yépp teewul rek fa na lahu nafsahu qatla axihi axihi bakkanam xemmemal ko rafetal ko taaralal ko rey mbokkam mi loolu nag macha allah moom laa leen di wax mooy annasul ammaara bi suu bakkan bi nga xamante ni du digle lu baax ndax nit ku ne am na ña ñaari bakkan yoo xamante ni ñooy njëkkan ñoo lay njëkkante léegi nag kenn ki bu njëkkee fa muy mujj du baax keneen ki bu bu bu bu jotee ci yow moom du bu la téyee ab diir dalay joxaat beneen bakkan mooy la an nafsul ammaaratu bi suu mooy bakkan bi nga xam ne du digle lu dul lu bon na bakkan boo xam ne mu ngi ànd ak nit du la digal lu dul lu bon soo amee problème mu lay digal ne la tey nga dem xam nga problème yu bari na sabab demal nga jël tuuti nga drogue yow jël tuuti ay drogue baax na wala nga naan sàngara tuuti sax sa bopp bi féex parce que loolu la lay digal soo nekkee jigéen bu la lewul moom moo lay xiirtal ca moom boo nekkee ci kees guñ la dénk te moomoo ko moo la naan sàccal ci xaalis bi moom bakkan boobu parce que du la digal dara lu baax boo nekkee nit yàlla di ko joxi teraanga moom moo la naan li la tee am teraanga promotion bi nga bëgg am ci liggéeyukaay bi te mënoo koo am diw mii moo la ko xaj demal ci sëriñ bakkan boobu la naan doo demee ne sëriñ ba na dof mbaa mu dee mbaa na tàqali ko ak yooyu yëpp bakkan bu bon moo koy digal nit boo tax kii bakkanam boobu ko digal lool ñaareelu bakkan bi nag mooy waama bakkan bi nga xam ne dalay yedd saa su ne day yedd borom mooy la conscience mooy la conscience xam ne boo bëggee dugg ci mbir daan la déet déet bàyyil di bàyyil bi baaxul bi baaxul boo ca duggee nag dëgër bopp ba topp bakkan bu bon bee lu la ca dal moom doy doy un juge après l'acte day ñëw juger la ni la waaw waxoon naa la ni la bul def lii dugg ba nga ca dugg moo la jural lii dugg ba nga dugg ca loo warta dugg moo la jural lii la dal tey ji mbokk jullit yi moom day muy bakkan boobu di digle lu baax soo ko toppee fa mu la jëmee mooy ñetteelu bakkan ba mooy yaa ajatuha nafsul mutma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati mooy bakkan bi nga xamante ni day ñëw ni la yow bakkan bi nga xamante ni nag yaay bakkan bi yàlla gërëm yow bakkan bi dal ñëwal nga dugg ci sa kër boroom yàlla kontaan ci yow bu baax a baax a baax nga dugg ci sama jaam yi waaye nga dugg àjjana loola la yàlla di nee na waaye bakkan bu bon moom toujours fa muy teer ak borom du baax wolof sax day wax ni ku fal sa bakkan ilimaan mu tàbbi loola ci jàkk joo bëggul woon a julle mu ni kon ndeysaan bakkanam bu bon boobu moo ñëw ni mu ni fa tawaat lan lahu nafsuhu qatla moo ko rafetal lu gisee kii moo fi nekk di la gêner loolu la bakkan bi def ci moom boo ko reyee coow li day jeex nga jël sa seex bu bëggee sax nga boole ak seexam ndax moom dee na ba pare waaye boo fi sàgganee ba ñu jël sa seex bi jox ko jël seexam bu ñaaw bee jox la di nga am coow waaw di nga am coow perturbé ko ba rafetalal ko loolu waaye yàlla ni fa asbaha min alxaasirin mu mujj rek bokk ci gaa ñi nga xamante ni dañu perte foofu la mujj bokk fa asbaha min alxaasirin dafa mujj bokk ci gaa ñi nga xamante ni dañoo perte allahu akbar yàlla nañ ci yàlla musal mu ni li tax mun la fa asbax min alxaasirin mooy li ko bakkanam taaral daf ko def mu rey mu rey seex bi mu rey frère am boobu noonu ba mu ko reyee rek rey na ko comme loolu mooy crime bi njëkk a am ci kaw suuf rek dëggal la malaaka yi waxoon ba yàlla ni inni jaailun fi l ardi xalifa malaaka yi ni ko qaala at qaalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak yàlla ni malaaka yi dama bëgg un représentant un vicaire sur terre ku may représenté ku may nekkal sa suuf si laa bëgg ku ma fa nekkal nekkal ma fa nag teewul yàlla mënal na boppam lépp malaaka yi ni ko ndax da nga fa bëgg a yóbbu koo xam ne bu demee day yàq suuf di tuur deret te ñun pourtant ñu ngi fii ci li nga bëgg de amoo ñun benn problème mun leen inni aalamu ma la taalamun yàlla ni man nag damaa xam lu ngeen xamul yàlla ni man damaa xam lu ngeen xamul nii laa ko bëgg gis nga rek ndeysaan yàggul dara rek ñu wàcc rek dégaa bi am fii xaabil rey haabil coow la topp ko fépp fu ñu waxeeti rey rek xel yi dina dem ci xaabil moo tax def lu bon baaxul fu ñu waxee tiit ki ñu njëkk a rey xel yi dina dem ca haabil loolu mooy mbir ma léegi nag mu rey ko li naan sàcc ndënd yomb na waaye foo koy tëggee moo jafe rey na ko léegi nag xamul nu muy def comme kenn musul rey nit mënuñoo xam ku dee dañu lay lakk wala dañ lay suul wala dañ lay dagg wala dañ lay moxoñi kenn xamul lu mu ko lu ko def léegi nag mu téye néewu bokkam mi te xamul fu mu jëm ak moom yàlla xool ko ba si yàgg rek fa baasa allahu xuraaban yabxasu fi l yàlla indi benn picc ñenn ñi nee nañ baaxooñ la ñenn ñi tudd nañ ko lu ne daal ala kullin ñaari picc la yoo xamante ni daal biñ ñëwee xeex nañu ba ñu xeexee baaxooñ benn bi rey moroom ma ci kanamam ba mu reyee moroom ma mu gës suuf si gas ba mu gasee suul ca morom ma moo tax mu ni fa ba Allaahu yàlla yónni xuraaban ab baaxooñ bu yabxasu fil ard mu ngay gas ca biir suuf sa li yuriyahu ngir mu wan qaabil mi kayfa yi nan la war a mën a suturaale saw ata axiihi néewu mbokkam bii maanaam néewam bii nu mu ak nu mu ko mën a suturaale loolu la koy wan nii moo tax boo demee ci borom xam-xam yi dañ ni la Qaabil ba mu ko rey ba pare da ko faa bàyyi rek xamul nu muy def ak moom koor bi ne fa te xamul nu muy def ak moom waaye ba yàlla indi ñaari picc yooyu njanaaw yooyu mu gis ñu songoo xeex benn bi rey moroom mi benn bi bi mu reyee morom bi gas ba mu xóot mu gis ko mu jël dugal ca morom ma suul mu xam ni ko nii ñii dañoo ñëw pour wan ko ni mu war a def mbokkam mi waaye ba loolu amee rek mu jaaxle mu ni yaaway la tax ndax wax dëgg yàlla xam na ni def na lu ñaaw loo xamante ni kenn mësu koo def ci àdduna moo tax bi mu xamee ni lii garaw na xoola mu ni yaa waylata woo naa sama toskare woo naa sama alku woo naa sama doyadi woo naa sama torox man a ajastu moo man daal maa tële an akuna ba ma nekk misla hadha al bi ba mel ni baaxoñ bii nii mu def mbokkam mi munu moo na sax xam ni lii laa war a def fa uwaar yi ma mën a suturaal ma mën a muur saw ata yi sama ayibu maanaam suturaal sama mbokk mi ba jël ko denc ko kooram bi ma mën ko suul munu moo na sax xam li noonu laa war a def loolu de la wax yàlla nii fa asbaha min annaadimin moom qaabil mu mujj bokk ci ñii réccu xam nga lu mu réccu réccuwul rey gi mu rey parce que booba bakkanam rafetal na ko lool ba mu amul sax regret ci rey gi mu rey mbokkam léegi li mu réccu mooy lan moo teewoon mu am xam nan la war a mën a suulee kii ba ab ay picc ay bàyyi ma ñoo ñëw di ko jàngal lu muy def mbokkam nee na loolu la réccu waaye du dee gi mu rey gi mu rey kii moom la réccu min ajli dalika ci sababu lii muy rey bii nga xamante ni qaabil rey na ko haabil katab naa dañu si lañu ñu dogale ala bani israila ci waa bani israila ni leen annahu luy mbir tey mbil man qatala nafsan ku rey benn bakkan bi xayri nafsin te du kooka dafa rey bakkan aw wala fasaadin ngay yàq bu yàq fil ard ci kaw suuf si ku fi rey nit te du ki nga rey dafa nekkoon di dafa rey nit wala mu nekk di def ayib yu doy waar yoo xamante dinañ ci dikk nee na ku def ci benn jël bakkanu doomu aadama ci erreur mu ni fakk annama sa nnaasa jamian dangaa mel ni ku rey àdduna yëpp yàlla nee na ku rey benn nit dafa mel ni yow àdduna yëpp nga rey boo demee ci abdullah ibnu abbas nee na jëf jii nga xamante ni moom la qaabil jëf rëccu ndax mu ni walaw kaanat nadaamatu ala qatlihi la kaanat nadaama tawbatun lahu nee na bu fekkonte ni dafa réccu la mu def euh, rey gi mu rey kon day tuub waaye tuubul li mu réccu moom mooy lu taxoon xamul nu mu koy suul yàlla nag ba loolu amee mu ni ci sababu loolu si la dogale ni képp ku rey benn bakkan waaw ci rey gi qaabil reyoon haabil mu ni ku ko rey bakkan tooñ ko te fekk ni bakkan boobu nga rey reyul kenn deful dara nee na dangaa mel ni ku rey ñëpp fa annama qatala nnaas jamian mel nga ni ku ñëpp kon bakkan lu foor la ci lislaam lu foor la ci yàlla boo rey benn nit yëgal ni dañ lay atte atte ku rey àdduna yëpp ndax yàlla neewu fi di bind pour ngay wër di rey mu ni waaye wa man ahyaaha ku dundal benn bakkan ku dundal benn bakkan kooku it la nga cay déggee dafay romb ay naan rey naan nit rek boo gisee bokk na ci loi yi réew soo fekkee nit nekk ci situation nga war ko sauver sauver woo ko yow dañ la war a tëj buñ la tëjee dañ lay àttee non assistance à une personne en danger da nga gis nit ku nekkoon ci danger dimbali woo ko moo xam da ko waroon dimbali ci yóbbu ko hôpital wala da nga dimbali ci jox ko mu lekk waaye waroon nga ko taxaw waaye nga seetaan ko ba mu dee yëgal ni yaa ko rey mbokk yi nañuy dimbalante nañuy dimbalante. damay wax nii xel rek xel mu rafet rek warte nangu nga romb ab accident bu doy waar ci tali bi di continuer di doxi say soxla nga xaar ma daw man bala ñu ma fee téye kër di ma xoolloo kii lii loolu baaxul baaxul kon seetaan bi ngay seetaan sa mbokk mu ne ci situation ba mu dee ba kanam des ca loolu garaaw la di ki noonu yi nag wa man ahyaaha ku dimbali nit tekk nit nekkoon ci situation yoo xamante ni feebar na buñ ko fajee mu wér te amul moyen faju yow nga am moyen yoo ko faje yóbbu ko hôpital jël ko en charge lépp ñu faj ko ba mu wér delluwaat ci njabootam fa ka annama ahya naasa jamian loolu soo ko defee mel nga ni àdduna yépp nga dundal mel ni àdduna yépp nga dundal bal ngaa xam loolu mbokk yi yenn saa yi rek nga ñëw ci benn béréb moo xam ab usine la wala société am benn signature boo bëgg ñëw ñu la ah, directeur bi de rek moo ko fi mën a signé waaye directeur bii ko fi mën a signé kat moom dafa feebar saa yoo ñëwee rek ñu naan la dafa feebar te fekk ne yow lii nga war a signé xëy na am na ay yeneeni bakkan yoo xamante ni ci sa signature bii la ñu aju ndax si nga leen war a joxe seen dund si nga leen war a lii si nga leen war a lee loolu lépp daj ci yow gis nga ni ngay bëggee docteur maanaam li ngay bëggee directeur boobu wala kilifa googu chef de service boobu wér ndax lan xam nga ni wéram gii kat li muy jur mooy mu signeel ma lii su ma signeelee lii damay dundal ju bare bari ci lii kon fa ka annama ahya naasa jamian signature am boobu day mel ni signature bu dundal ñëw àdduna yëpp mu ne walaqad jaahum dikkee da leen ba tey day rusulunaa suñu yonent yi bil bayyinaati ci lay yu bir yu leer waaye summa inna kathiran minhum waaye li ëpp ci nit ñi baada dalika ginnaaw lii fil abd ci kaw suuf si la musrifuuna ñoom ay yàqkat lañ yàlla nee na ñi ci nit ñi amuñu benn fonction bu ay yàqkat lañu yàq rek lañuy def ñenn ñi nekk ci tali bi di doggale nit ñi di agressé nit ñi loolu ko koy def wallaay dañ sant yàlla ba bañ ñëwul ci état islamique ndax am na yebaate goo xamante ni kenn xamul lan la dëkk boo xamante ni yow booy dawal sa oto lu mu tàng tàng tàng doo sax bëgg a wàcce sa verre boo yoree sa téléphone soo ko wàccee ba mu ëpp mbénn waay jaar fee këf ko dem daw yoonam yenn saa yi kenn mënta dox yenn heure de crime yi yenn heure yi bu la yàlla natt woon nga am soxla bu la bett sooy génn yaa ngi gis su gauche yaa ngi gis su droite ndax lan dangay xam ni danger bu rëy a rëy dafa nekk ci yoon wi mu ni kon nit ñi de li ëpp ci ñoom ay moykatu yàlla lañ waaye ñi ëpp ci ñoom ay tooñkat lañ waaye ay yàqkat lañ yoo xamante ni yàq rek la ñuy def ñii di rey yonent ñii di def lu bon ñii di def lu ñaaw ñii di dogali nit ñi yàlla nee daal li ëpp ci nit ñi daal moom mi leen xam nee na gis na ni ginnaaw lii xew yëpp ak lii wax yëpp yonent yi dikk indi lay yu biir teewul nit ñi daal ginnaaw loolu teewu leen doon ay yàqkat lii la borom bi subhanahu wa taala wax ay bii jël nag anas moo ko nettali dafa am benn groupe nit boo xamante niñ ci day na lañ bokkoon dañoo ñëwoon ci yonent bi alayhi wassalaam am lu ñu doon waxtaanee ak yonent bi am lu ñu doon sàkku ci moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam yebal ca seen dëkk ba ab gilleem ci misaal gilleem nga ba mu ñëwee ci ñaanu borom bi subhanahu wa taala ñëw la leen waroon ca moom mooy ñu cay lekk ñu cay naan saa su ne ak di ca jëfandikoo ñu xëy bis mooy ndigalu yonent bi ca loola rey ki nga xamante ni mooy borom gétt baag rey gétt xar yaag gilleem yaag yëpp def ca daal defin bu ñaaw boo xamante ni loolu du la leen yonent bi santoon ba pare jël jur ka dem ak moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ñooñu kat digle ni nañu leen fexe ba jàpp indi leen parce que bu ñu leen indee dañu war a dagg seen euh, loxo waaye dañu war a dagg it seen tànk dañ leen a am dañ leen war a rey reyin bu ñaaw ndax jëf jooju ñu def rey googu ñu rey ay nit mooy non seulement nga doon sàcc doon wuyu ba pare boo doon di violenter nit ñi dafa garaaw xam nga loolu ci yoon sax àtte boobu bokkul de waa ji nga xamante ni dafa ñëw bàyyi ba guddi jot mu ñëw sa kër. tëb sa parentière wala fenn dugg sa kër wala bàyyi ba heure boo xam ne heure négligence la dugg fa jël fa dara dem kooku bokkul ak ñaar ak ñett ñi nga xamante ne dañu vol en réunion lañ koy tudde gravité ba nekk ca vol en réunion bokkul ak benn nit bi nga xamante ne mooy parce que bii dañuy gis ni ñi c'est commandité jombul waa ji ñëw na xool na sa kër natt na ko waxtaane nañ ko ba xool nu ñu la def loolu bu ñu leen di àtte du bokk ak benn nit bi nga xamante ne jug na borom bi subhanahu wa taala nag ni innama jazaau alladina yuxaaribuna allaha wa rasula nee na fayub gaa yi nga xamante ni kat ñoom dañuy bañ di xeex ak yàlla ak ko yonentam ñoom ñi nga xamante ni lépp lu yàlla digle duñ ci nekk lépp lu yàlla tere ci loolu la ñuy nekk wa yasaawna fi l ardi yemuñu foofu waaye ñuy dox ci kaw suuf si di yàq di def ay dégâts di rey nit ñeeg di sàcc nit ñeeg di agressé nit ñi di pompe ñi di leen di def yàq rek yow ñoom daal nekkewuñ ci kaw suuf si lu dul def lu bon ak yàq nee na ñooñu de seen fay du dara lu dul añ yu qattalu nee seen fay mooy dees leen di rey nee na loolu la islaam wax ci ñoom nan leen rey bu ñu leen jàppee aw wala yu sallabu ñu salbu leen maanaam mooy lan mooy nan leen daaj ba ñëpp xam ni ñii dañu def lu bon moo tax ñu takk leen pendre leen pendre googu ñu leen di def pendre nee na nañ leen def loolu ndax ñaaw ñaawteef bi ñu def aw wala tuqatta aydiyahum wa arjulahum min xilaafin nañu dagg seen loxo ndeyjoor ak seen tànku càmmoñ wala seen tànku càmmoñ ak seen loxo ndeyjoor nee na nañu leen def noonu aw wala sax yun faw min al ardi ñu génne leen ci dëkk bi waaw sori leen dëkk bi yóbbu leen ba ca àll ba yóbbu leen ba fu garaaw teg leen fa ca prison yi foofu nee nañ leen def loolu mooy lan bu ci nekk rek yàlla dina ko leeral mu ni zalika lahum xisyun fi dunia loolu day dina doon gàcce gu rëy ak toroxal gu rëy goo xamante ni dinañ leen ko def fii ci àdduna wala hum dinañ am nag ñoom fil axirati ci alaxira adabun azimun mbugal mu tar moo xamante ni dina wàcc seen kaw yàlla nee na loolu dina am mooy lan mbugalum safara ah, ah, boroom xam-xam yi nag dañu wax ni imam bi mooy xool su ko neexee mu pendre leen su ko neexee mu dagg seen loxo ndeyjoor ak seen tànku càmmoñ su ko neexee mu jële leen fi ñu tëji leen ca fu sori loolu nag ngiru imam Malik loolu la wax waaye boo demee ci Abdullahi ibnu Abbas da lay wax ni la bu ci nekk ci ci ci caay-caay gi bu ci nekk dafa am mbugal bu mu tollool benn mu ni ku fi nekk koo xam danaan rayee rek nañ ko rey mu ni koo xamante ne nag danaan rayee di jël alalu nit ñi moom dañ koy pendre ba mu daaj ko taf ko ci biir ba mu dee parce que dafa def lu garaaw non seulement da doon wër di rayee waaye daf leen boole yi nag di jël alalu nit ñi waaye mu ni koo xamante ni nag moom dafa yemoon ci di jël alalu nit ñi kese moom waaw moom jël alalu nit ñi kese la doon def moom su ñëwee dañuy dagg loxo bi waaw moom dañuy dagg loxoom parce que day doon sàcc di jël alal nit ñi dina ko gën a leeral sax ci wasaare wasaare mu ne noonu lañ koy def mu ni bu dee koo xamante ne moom da daan tiital nit ñi moom nee na dañ koy génne yóbbu ko ñu tëj ko moom loolu lañ koy def koo xamante ni da daan terroriser nit di leen tiital donte leen reyul kenn deful ñaaw ñaawteef yi gaa yenn yi def moom noonu lañ koy attee neen moom noonu mooy atteem mu ni illa alladina taabu min qable an taqdiru lu dul nit a ngi koo xamante ni lii moo doon métier waaye nag jàppees mu tuub lu jiitu ngeen di am kàttan ci moom maanaam lu jiitu ñu koy arrêté mu tuub allahu akbar mbokki aaya bu doy waaru ngo ndekete nit lu mu def bu tuubee suñu borom subhanahu wa mën na ko jéggal waaye nag booy tuub tuubal ca yàlla ma nga xamante ni mooy buur bi moom nga tooñ tuubal ca moom moo tax mu ne illa alladina gaa ñi nga xam ne ba mu des gaa ñi nga xam ne taabu dañoo tuub min qabli an taqdiru alayhim lu jiitu ngeen leen di jàpp am sañ-sañ ci ñoom tuub nañ boo gisee wax ci la mu def li muy garaaw garaaw mais ba mu tuubee yonent bi xam ne moom la mitti na ko torop li mu defoon bàyyi taxam mais def ko bàyyi parce que dafa tuub faalamu bu baax na ngeen xam ni anna allah naka yàlla xafuurun ku bari yërmande la waaye raxiimun moom borom bi subhanahu wa taala day ku mën a jéggale la moom borom bi subhanahu wa taala faalamu anna allah xafuurun raxiimun xam leen ni borom bi subhanahu daal ku mën a jéggale la waaye ku mën a yërme la mu ne yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñi nga xamante ni yéen a gëm yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla waaye tax wabtaxu ngeen sàkku ilayhi jëm ca yàlla utal lan alwasila lu leen jokkale ak seen borom mbokki jullit yi aaye bu bari coow a ngi waaye wax dëgg yàlla bu baree coow rek ñun ñoo ko ci indi nag su baree coow ñun ñoo ko ci indi mu ni wajaahidu ngeen jihaad fi sabilihi ci yoon yàlla laallakum tuflixuun ndax loolu kat jural leen ngeen am texe yàlla mbokk yi wasiila baat bu leer la baatub araab la kenn ku ne yaay xam la ngay def sa wasiila mu jëmee la ci sa boroom nit a ngi koo xamante ni kat day gis ni kii nit ku baax la nit ku mën a jaamu yàlla la nit ku góor góorlu la ci digganteem ak boroomam mu naw diineem naw jaamu yàlla ni ko man de wax dëgg yàlla dama bëgg ñëw ànd ak yow ndax nga jëme ma ci sama boroom kooku wasiila lay tudd nit a ngi koo xamante ni nee na man de wasiila bi ma bëgg a ut xëy na du ma ut sax nit ni ko yow yaay doon sama sëriñ yow laay def sama wasiila nga may jëme ci yàlla waaye man damay fexe ba jàngi téere yàlla bii di alquran ba xam lépp luñ ma ci mën a wax bu boobaa kii sama wasiila ci yàlla mooy alquran muy téere borom bi subhanahu wa taala kilifa gi koo xamante ni daa man li ma bëgg mu jokkale ma ak sama borom mooy jëf ju baax ji nga xamante ni moom laa fas yéene di jëf sama diggante ak sama borom loolu moo may jokkale jëmale ma sama borom kon kooku it sañ na ko nit a ngi daal koo xam ni nit la doyloo nit ka mu doyloo nag la tax mu doyloo ko dafa gis ci moom yàlla ju ko saf ju ko doy moo tax mu doyloo ko ni ko yow mii laa bëgg nga yóbbu teg ma ci yoon wi ma jëbe sama borom yow daal yaay sama wasiila ci sama borom loolu nag kenn waru koo wan a war a tëri nit ni ko waroo nit naan ko mooy sa wasiila loolu day dugg ci tooñ te yàlla bëggul koy tooñ comme nit ki ni man de wax dëgg yàlla euh, utuma kenn amul benn nit bu may dem ni ko yaay sama wasiila dinaa xam daal téere yàlla bi man daal alquran jii mooy sama wasiila man alquran mooy sama wasi nit ku nekki nag sañ na ko nit du ko def nga ah yi kenn xamul lal ku bëgg a dem ca yàlla il faut nga wasiila waaye man toog rek naan da ngay demal sa bopp noonu déet déet déet sëñ bi loolu nag da ngay dugg yow it ci tooñ te boo ko waxee te borom bi subhanahu wa taala bëggul kuy tooñ bëggul fu ñuy fekkee kuy tooñ kon daal kenn ku ne la nga gis ni daal boo ca jàppee mu jëmee la ci sa borom nga def ko sa wasiila kenn du la ko tere mu ne jihaad leen nag ci yoonu yàlla ndax yàlla ngeen am texe goo xamante ni jële ngeen ko seen borom mbokki jullit di seen tafsirul quran jeexul waaye waxtu wi dàq nañu bu baax li mu ñu jural nag mooy dañuy dem incha allahu service commercial jàllale publicité su ñu ñëwee nag incha allah jàngat bindu tey bi ba pare nag ubbil leen téléphone bi yaakaar nañ ne tey ça va marcher incha allah ngeen participer ci ni ngeen ko bëggee rek ci émission bi kon ñu dem service commercial. mère de famille, je suis très attentionnée. Chaque matin, avec Alib, je leur donne à tous ce qu'il faut pour leur bien-être. Leur bonne santé, leur endurance, leur équilibre. Alib, le goût naturel du lait. Et il n'y a aucune allah ñu dellu si waat ak yéen ak incha allah dinañ leen affiché léegi numéro téléphone yi nga xamante ni su ngeen bëggee participer ci biir émission bi fi ngeen di jaar macha allah léegi sëñ naa Omar affiché leen ko waaye nag ñu jàngataat nag mbokk yi en attendant loolu di ñëw ñu jàngataat bindu tey bi dañ ko jàngat mbokk bindu bu am solo. bind bu jara bàyyi xel euh, njalbeene ko macha allah ci histoire bi nga xam ni ñu ñëpp war nañ ci jàngat muy njabootu maam aadama yi luñ ci jàngate mooy nit doo égoïste égoïsme boo la jàppee ak li ñuy wax ananiya maanaam yow kenn ñoru la kudul sa bopp nit da nga war li ngay def nga def ko ak ñëpp waaye koo xam ne sa bopp rekk la ñor ñu wax ni naar ba ban ko ni ndax muus am na ñu koy wax ndax am na gànnaar mu ni mu nga fa de waaye boppam rek la fa nekkal a nee na muus am na fa waaye boppam rek la fa nekkal nekkalu fa keneen loolu dafa doy waar te dafa jar a bàyyi xel mbokk yi mooy lan mooy nit sa bopp bu mu la ñor mukk ba ngay lor nit ndax sa njariñu bopp xam nga lu ñaaw lii nga xamante ni Qaabil def na ko daara juralu ko lu dul boppam moo ko ñor moom keneen intéressé wu ko yàlla nii la ko bëggee bëggeewu ko ni sama yoon nekku ci nit nag saa yoo tollee foofu ba nga xamante ni yow sa bopp keese moo la ñor intérêt général sa yoon nekku ci yow sa intérêt bopp keese keese keese moo la ñor moo lay jural mbëgge moo lay jural defi dégâts moo la jural erreur yoo xamante ni da nga koy def ba pare réccu ko loolu mooy li dal suñu mbokk mi di xaabil xaabil lii moo doon problème amul woon beneen problème mooy gis na ni daal moom kii ñu ko bëgg a may gënalu ko mais gënal na ma gënalu ma seex bii la ñuy may may seex bi dafa jar bakkan ba jarul bakkan di mais gis nga mu topp passion ak bëgg-bëggam ba loolu jural ko jalousie muy iñaan gu nekk ci moom goo xamante ni daf ko sonal looloo ko topp ba mu jël décision ni kii nga xamante ni moo ma dara yàq sama dund moo ma dara xañ dinaa ko rey lan nag aka bari ñuy wax lii ci suuf te koy jëf nit a ngi koo xamante ni ndeysaan otoom def na accident fekk ni yoo dañoo sa saboté frein kenn xamul lu xew nag ndeysaan mu dawal ndax bis bu ko loola di dal ba bakkanam di ca des kenn du mën a xam lan moo ko lan lan moo sabab loola ca moom fekk ni nit jomb sax nit lay liggéeyandool nit kookaa jàpp ni man li ma tee avancé du dara lu dul kii moo ma bloqué sama blocage yëpp yëpp yëpp jëmm ji la léegi nag pour man ma man ràññeeku ci liggéeyukaay bi pour man ñu man ma fi xam pour man ñu man ma fi fonk faw ma jël bakkanam faw rek ma jël bakkanam tous les moyens nag sont moom pour ma mën a yegg man ci sama objectif loolu jullit bu ne daf ko war a moytu asalaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maanaam ñu ngi lay siyaar. kooku. monsieur Diop lan koy wax monsieur Diop. lan koy wax monsieur Diop. monsieur Diop. waaw monsieur Diop. ah monsieur Diop maa ngi lay ziare. naka yaa ngi jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax naka foo ñuy woowee. waaw maa ngi lay ziare ziar waa Sédhiou yëpp macha allah. waaw ñu ngi leen di baax su borom yokk tali bi gën ko jëmale sa kanam ak kanam. amiin amiin amiin amiin. ñu ñaanal oh, xam naa Omar boo ma mënee yokkal tuuti son bi son ma gën a dégg waaw. Uh-huh. ma uh-huh. waaw waaw maa ngi dégg bismillah. amiin yaa rabbal alamin amiin amiin. maanaam yokk ko kàttan nañ leen dooleel leen. amiin yaa rabbal alamin amiin. ndax de ñu ngi seetaan émission yi amul émission amul ay sponsor mais depuis ñu mën ba tey seetaan télé ba léegi. dëgg la wallaay. dafa gën a bëri seetaan télé ba léegi émission yi mu koy seetaan yëpp di am sponsor mais lépp mu ngi dox. ndeysaan wallaay wallaay wallaay loolu loolu am solo. kon sponsor télé bi suñu borom moo ko sponsoral boppam. Mm-hmm. di ñaanal nag di leen ñaanal jàmm di ñaanal abaa abaa na ko ñu ngi koy sant di ko gërëm ah. incha allah dinañ ko dégg dinañ ko dégg. jërëjëf macha allah suñu mbokk moomu di woote ba Sédhiou ñu ziar ko bu baax moom it yàlla yàlla fay ko mu ngi nuyu waa kër gi yëpp macha allah yàlla yàlla defal ko jàmm kon nag yéen ñi mu nuyu yëpp jotalal nañ leen ko nuyoom ñoon Tonkara ñoon Aba ak mbokk yi nga xam ne rek ñoom la ñu nekkandool fii ci kër gi ñaanal na it suñu kilifa gi El Hadj Ndiaye yal na yàlla gën ko dëgëral macha allah jàppale ko yaatal kër gi suqali ko loolu nag dee leen ñu ko ñaanle dox dëgg yàlla lépp luñ leen di baaxi ci diine mu néew mu bari fii la yàlla jaarale suñu kàddu pour ngeen mën koo jot macha allah kon bu ñu ñoon kër gii di 2STV yi suqali ko bu baax a baax a baax a baax a ñaanal bu baax nag ilaaj waaye ñaanal tabarakallahu suñu directrice euh, ajaa directrice comme ni ma koy waxee ajaa directrice ñu ziar ko di soxna Marème ak ñi nga xamante ni ñooy équipe bi fi nekk yépp di àndandoog ñun ci liggéey bi yal na yàlla fayal ñu leen mbokk yi kon ma waxoon ni loolu dafa am mais ñu jàngate it ci digganteem ak Haabil ni Haabil nit ku dal la nit ku dal mooy Haabil parce que wax dëgg yàlla nit ni la dinaa la rey te tiitalu la dérangé wu la ba mu mettre menace yooyu mu doon def mu mettre ko en exécution maanaam xëy rey la te yow nga xam ni kii la bëgg a rey ba mu la ko waxee boo songoo woon ak moom yaa ko man yaa ko ëpp doole waaye nga xool sa digganteek sa borom ba ni ko yow boo jëmalee sa loxo ci rey ma libre nga ci mais man duma ma sama loxo ci yow ngir rey la du ma tàllal sama loxo ngir rey la tey du ma songoog yow parce que man wax dëgg yàlla dama xalaat sama digganteeg sama borom dafa am solo jullit day xalaat digganteem ak boroomam loolu dafa jaadu mbokk yi dafa jar a bàyyi xel jullit nay xool bu baax digganteem ak boroomam la mu fay doxal lal la da ciy bàyyi xel koo xamante ni yow sa yoon yow xalaatoo yàlla ci dara séddoo yàlla ci dara lu la neex def nu la neex nu la neex defe ko it macha allah loolu jullit daf ko war a moytu jullit daf ko war a moytu moo tax nga xool kàddu gi nga xamante ne wax na ko ni ko man de bugguma boo bokk ci nit safara yi yow nag boo mënee jël engagement bu toll noonu mooy rey ma gàddu sama bàkkaar ak sa bàkkaar yépp dem ca sa kanamu boroom te loolu di la jural nga jëm safara man ëpp doole gi ma la ëpp doole du tax ma utiliser sama force mukk jëmale ko ci yow loolu la ko Haabil wax asalaamaaleykum. allo. salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum waaw ku baax na ngeen def. alhamdulilah. ñu ngi lay ziyaare bu baax macha allah. danga nga def waaye. maa ngi sant yàlla bu baax bu baax. yow yaay kooku kan laay ah, Abdoulaye. waaw Abdoulaye Guèye waaw. ah Abdoulaye maa ngi jàkkaarloo loolu te télé bi fi attañu nit léegi maa ngi lay ëmb te mu laa jot. ndeysaan ndeysaan jot yàlla dogal na ko. at la at de at la fii nekk naa bopp bu dalaa nekk bokki laaj. ndeysaan. Mhm. maa ngi lay déglu doo morow ren dem naa Dakar jaale gi mbokk rek ma tax a dem dugg naa fu ne téléphone naa fu ne pour jot la mënu maa fexe ba jot la. tey sant na yàlla ba jot la waaye li ma bëgg kay moom bu ma xamoon ne bu ma sama sama kàddu dina xaj ci antenne bi ñëpp gis ñu ñëpp dégg ñu. Mhm. waaye maa ngi bu ma wàññiwul télé bi du ma la dégg sax bu baax mais pour jot la rek léegi kay li ma ne ñaan yàlla kooku kooku loolu loolu mënta am. Mhm. ma yàlla numéro dama numéro bi yow ndax yàlla. ma sant ci yàlla bu baax a baax a baax boo ko defee day mhm. yàlla xam ne ne su ma yàlla yàlla moom ak bëgg sama bëgg-bëgg ñu tokkoo incha allah yàlla moom dinaa ko nangu di nga yàlla di nga am léegi suma numéro ku baax léegi bul ko ma numéro bii ma lay jox ma la koy jox léegi nga mu ko jàpp ko te woo ma te yàlla tax waaw man te ma xam-xam bii nga jàpp te yàlla tax ak xam-xam bii rek rek rek ma gëm la nga yitteel ma guddee bëccëg daaw ba ren ma lay ut ma la mun naa fex ba jot la léegi léegi léegi loolu moom sama xol ni mu rek rek rek yàlla xam na fi ma toll. ndeysaan yàlla baax na yàlla yàlla fayal ñu tur. yàlla tax léegi sama numéro man. waaw waaw léegi xam naa waa régie dinañ ma ko jëlal xam nga nooy def euh, bul coupé waa régie dinañ jël sa numéro waa kay mbokk moomu macha allah yàlla na ñu ko di wootee ba Fuuta moom it yàlla na yàlla defal ko tawfiq naa bu dee rek incha allah waa régie ngeen jox ko suñu numéro bu ñu paree dinañ mën a jokkoo ak moom yàlla yàlla fayal ñu ko macha allah yëpp seen cofeel ci alquran rek lay wan yàlla xam na loolu seen cofeel ak bëgg ngeen bëgg alquran rek lii mooy feeñ ci seen i kàddu yàlla yàlla fayal ñu leen mbokk yi ma ne gis na kon loolu nit daf koy xam yàlla dalaa war a gën a lépp waaw ay intérêt àdduna ak ay calcul bu mu tax mukk nga dugg ci loo xamante ni danga koy réccu ëllëg sa diggante ak sa borom baaxul loolu jullit bu ne daf ko war a moytu loolu donc nag la la la haabil xam xam xalaat digganteem ak boroomam ba duggul ci leen beneen beneen bi aussi war nañoo jàngeet ci mbir yii ni nit nit bala ngaa dugg ci loo xamul dangay fexe ba am porte de sortie waaw utal porte de sortie bala ngaa dugg ci tooxi doona goo xamul moom mii bi muy dugg ci rey waroon naa xalaat avant muy rey waa kii su ma ko reyee ba pare nu ma koy def waaye gis nga bu la sa bakkan jiitalee sooy def ay dégâts ak i erreur doo calculer sax waaw da wax da def ak passion topp sa bakkan topp sa fugg ba def loo xamante ni soo paree réccu dala cay fekk looloo dal xaabil ci mbokk mii di xaabil dugg na ca rey na ko waaye gis nga rey ga la ko jural ak coono ya mu ko jural looloo dañ koy jàngat ci bindu tey bi beneen bi mbokk yi war nañu jàngatit ci bindu tey bi ni képp ku fi nekk di wër di rey lislaam li wax mooy nañ la rey parce que dofoo ba war fee nekk rek yabaate di rey nit ñi comme ça ñu lay bàyyi léegi nag yàlla wax na lu leer walakum fil qisaasi xayaatun su ngeen bëggee seen dund neex ku fi rayeti rey leen ko la mooy jeexal mbir mi de loolu la suñu waroon wax kon nañ ci bàyyi xel ak yeneen ak yeneen gis nga boo fi boolee di rey ba pare di sàccaale alalu nit ñi boole di rey loolu yi dafa am beneen punition buñ ci buñ lay teg du bokk rek ki nga xamante ni dafay jël alalu kese rek wala bokk la ki nga xamante ni aussi day rey yooyu yëpp l'islam daf ko définir mu leer loolu lépp jàngat nañ ko tey jii ci bindu tey bi xam naa ma jël sama dernier téléspectateur wala auditeur salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Hmm, soxna si na ngeen def. waaw alhamdulilah ñu ngi ziar. maa ngi delloo ziar bu baax bu baax. ñu ngi ziar bu baax. maa ngi delloo ziar. di kontaan ci émission yi fii 2S. jërëjëf jërëjëf macha allah. waaw waaw ñu ngi leen di di nuyu di kontaan ci émission al amin ndax nag la ñun tubaab ñun ñëpp nga ziyaaral nga leen ci koor gi. dinañ ko dégg ko. jazakallah xeyr. amiin wa iyaak amiin. macha allah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. suñu soxna si tedd sos yàlla na yàlla bindal ko yiw moom it bu bëree bëri muy ziar baax émission yëpp rek waaye di ziare si émission professeur professeur Ahmad Dame Ndiaye di suñu professeur nit ñi dañuy rafetlu liggéeyam saa su ne foo ñu mën a toll macha allah yàlla na leen yàlla. a fay mooy suñu kilifa di suñu professeur macha allah kon lépp lu nit ñi seede ci moom day doon mbégte ci ñun ñi nga xamante ne ay njabootam ñu koy ñaanal yàlla mu defal ko wér ak sama taalibe nag boobu yi macha allah day bañ nag muy Mouhamadul Amin Dramé xam nga man fii ñaari taalibe laa fi am benn bi moom la beneen bi Maodo fay la mais dañuy bañ nag bu ngeen leen dégloo dañuy lànk ni du ñu samay taali mais samay taalibe lañ ngeen xam leen ñu ngi leen di ziar ñoom it bu baax nit ñaa ngi rafetlu liggéey bi yàlla yàlla fayal ñu leen macha allah ñuy ndokkee rek toujours suñu mag suñu kilifa macha allah seen sey di Alioune Sarr nga xam ne saa yu ñuy def émission bi day ñëw dañ ci wéttali macha allah du ñàkk rek bis dina leen ko wan ci taxawaay li nga xamante ni moom lay def fii ñuy defee tafsir bi ak ni muy bokkee ak ñun jotaay bi yàlla na yàlla fayal ñu ko yal na yàlla fayal ñu sant bu baax nag techniciens yi nga xam ne ñoo saytu liggéey bi ñaanal leen jàmm yàlla defal leen tawfiq defal ñu ko defal ñu wér macha allah ba ñu dajewaat fi suba incha allah mu ñëwee nag sof li nga xamante ni sosoon nañ ko yàlla dina wax ki am alal waaye sàggan ba deful li ko yàlla sant ba faatu ndax alalam jooju dina ko jariñ bu ci bëggee jotu yowmal qiyam wala déet bu ñu fi dajee ci loolu la ñuy ñëw leeral ko yàlla ñu yàlla defal dégg yàlla ñu yàlla defal topp yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñu dégloo waxtaan seen la ci ëpp njëriñ ñu jël ko yàlla bëgg ñoo bëggaloo ñu lislaam allahuma habib ilayna al imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna min ar-rashidina wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh